àndal di liggéey bii maam Cheikh ah sëriñ bi nee na mi ngi leen sant sant goo xam ne nii amul ab yamukaay te itam képp koo xam ne nii nekk nga fii ci dëkk bii di Ndakaaru di julli rawante na nga bokk ci kër Cheikh Ahmadou Salim Mbaye ñoom itam war leen amal ak jant ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne man sanna sunnatun xas sunnatan xasanatan falahu ajruha ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al qiyaama yonent bi sallallahu képp koo xam ne nii xotti nga yoon wu rafet da nga am yool ba ak yool koo xam ne nii jaar nga ci yoon woowee am yool ba moom dana am ba ba ah, ñoom nag lii ñu def képp koo xam ne nii nekk ni fi di bilit rawit na ak taalibe yi ci nii ngi leen di gërëm ah ñu ngi ki nga xam ne moo tax yéen taxawal bis bii sant maam Cheikh Mbaye woo ko ci kooku jaara sant la jullit ñépp war a ko sant boobu mënaa nit ñi àgg moom ndax nee na sunu borom xëyewul fenn wàll ju gontoom nee na itam ni lu moo bor damaa am fay te giñ na ne bis fa billaahi jaawasul maraakiba kullaha wa min bahri zaatillahi nahja wal alu mais nee na giñ na ne yàlla ne jéggi na martaba yi yépp kon boog kooku képp koo xam ne nii taxawal nga bis ci woo jullit ñi ko sant ah jant gi war na la rawatina nag ñu aju ci moom nga xam ne ñoo sabab lii ñu leen sant bu baax a baax ndax daana ci jariñ ñu képp koo xam ne nii ñëw nga fii wala nga dégg ko wala nga am yéene te ñëw wala nga am yéene ñëw te ñu loo ñëw sëriñ bi nag ah lii ñu ko waxee dafa jàpp ne gan la ñëw fii waxtaan taalibe yi fi nekk yendoo ñoom ba ngoon jot waaye préparé na lu ñoo ter loolu moo tax ñu boole ko ci waaye moom ngan rek lañ ko waxoon ba tax na waajul woon conférence bi kon xam naa du ñàkk rek mu sànn mu sànn ci ay kàddu yoo xam ne ni day ñaaxaat jullit ñi ak mbokki taalibe yi ci wàllu lislaam ak fàttali leen itam ki nga xam ne moo tax ñu taxawal bis bi mosal leen ci moom dara waaye waxtaan nag lu lu am solo salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ bi ku yàlla duy ku yàlla duyeel yàlla la duyeel teg na sama loxo yi te saa yu nekkee ci loxoy ay julli lépp lu mu bëgg yàlla na ko defal te lépp loo xam ne képp koo xam ne ci poñ rek poñ ba lu mu mën a mel yàlla na ko dépassé kon kooku doomam bu nekkee nii yoo xam yéen bu la ko jàpp ak conférencier jàpp leen ko muy bu muy siyaare jàpp leen ko muy kuy jàlle àddina ak alaxira jàpp leen ko muy kuy jàlle àddina ak alaxira waaye bu la ko jàpp ak conférencier bu ak conférencier de billaahi du ko dana wax rek laaj yooyu ñu doon du ma guddal dama ko mbar fi mu nekk asalaamaaleykum baax na jërëjëf yàlla waaye ngi sant ndey wax itam ci kàddu yi rafet yooyu ñu naa lépp lu kontaan sëñ bi kontaan ñu jox sëñ bi rek mu sànni ci ay kàddu bu gudd nag comme ni ñu ko waxee woon ndax préparé wu ñu conférence bi doone yi dafa metti ndax conférence yu bari sax daf koo bàyyi léegi dafa dafa ne léegi jot ji maytu ko ñu def ay conférence ba tax na léegi képp koo xam ne sax ñu ko daan woo conférence jàppale ay cassette yooyu bi ñu ko dajalee sañoon sax di ko def ba ah, ak maanaam alkat même dootu bare bare bare moo tax conférence yi di dem di di ko daan boobu muy def yooyu léegi daf koo bëgg a bàyyi ba ci kanam incha allah kon boobu ñu jox ko rek 10 de un dix. bismillahi rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa xayril anbiyaa wal mursaliin wa alaa aalihi wa ashaabihi ajmaiin wa man hadaa bi hadyihim ilaa yawmi ddiin jullit yi ndax bi ñu sant yàlla di ci yonentam bu tedd bi ñu leen di nuyu leen sant di bëgg ci yéen di leen ndokkeel ci taxawaay bi daje bi nga xam ne suñu boroom rekk a ko waral lu mu def lépp lu mu jëf la mu jëf ngir yàlla moo ci gën mooy li ci gën solo bépp jaam boo xam ne yëg gi nga yëg sa tedgut boroom ak kàttanam ak man-manam ak yërmandeem ak xéewalam ci yow ak ci li la wër li la tiim loolu tax seqtu benn jéego jëm ko foo jëm foo xam ne yaakaar nga ne da ko fa dollikoo dolliku góor bu rëccu la ak nag àllaaxira sallallahu alayhi wa dafa ne mboolem daje jullit ñi daje te fàttaliwuñ fa yàlla julli fuñ ci yonent te daje ba ak perte lay doon bis ba nga xamee ne jaam bi mu ngi waaj jóge ci kër gii di dañ lépp lu fi nekk di dañ jaam bi waaj fas fi yéene jóge di ko wan fépp fu mu jaaroon ak lépp lu defoon ak lépp lu mu ci xolam bërëb yooyu bokk ci li gën a woyof fi nun defe ne amul solo mooy bërëb bu nu toog daje fa bu jóge fa ku nekk dem fàttaliku fa yàlla dolliku fa ci lenn bërëb yooyu dana bokk ci perte yi gën a metti yoo xam ne doomu aadama bi dana ko jooy dana ko naqarlu réccu ndax nit xam na ne lépp mu fal ne woon ba am ko fi dana ko fi bàyyi keneen koy jëriñoo waaye lu doon moom xam ne fu mu jëm rek fekk leneen fekkee ne mbir mi def na xelam ci loolu fàttali ko léeg-léeg bañ koy fàtte peel ëllëgam dana neex ndax waxuma su taxawaay ba su par leer bu tàlli ba jaam ñëpp di daje xëcc jant bi ni ñu koy faral di waxtaanee rek mu jege bopp bi loolu mu ngi di xuus ci seeni ñaq lu jiitu bis booba diir bu yàgg nit ki dana ko tëdd ci bàmmeelam tëddaay boobu mu tëdd ci bàmmeelam mën na neex mën na naqari mu ngi neex ci ko ko fàttaliku def sa xel mu ngi naqari fàtte borom ko dafay lu mu jublu mu am diwee ba waxtu wam ko àppale nammul muy kër goo xam ne day ràpp dara dootu fi nekk feek digg ba ñëwul loolu tax mu sant jaam ñi nañu liggéey àdduna bi ngir namm ci àllaaxira liggéey bi ñuy liggéey àdduna yéene ji rekk ci am solo boo dee tabaxal sa bopp kër mu nga yéene dëkk ci di ci jaamu yàlla boo fi jógee keneen ku ci dëkk keneen ko dox ba agsi fi lu fi nekk ci xéewal ku ci xéewlu ci ndox mu muy naan ci ker muy taxaw wala lal bu muy toog nga yéene mu di jaamu yàlla mu doon ak jaamu yàlla saxaaba yi noonu lañ defoon dañoo liggéey woon àdduna ngir am alaaxira moo tax ñu xeexoon ñu tàmbalee Màkka ba ci sunu géej gi ñu tuddee océan Atlantique xeex ngir dugal nit ci lislaam xam nañu xamuñu ko te ñàkk koo xam gi daf leen di lor xam itam ne ñiy dox diggante nit ñi ak diine bañ ñu tuub yéefari màkka yi ñu ngi jàpp ci loxo yi nit ñi di leen xëcc ci jëme safara ñu bañ loolu am suñu borom sant leen ñu xare ñu dale foofu moom Espagne moom lu bari ci itali moom lu bari ci France walbatiku dëkk bi moom Afrique du Nord wala ba di ko jublu penku ba ci réew yi nga xam ne yépp lislaam àgg na fa bari si ñoo xam ne amoon nañu ay million yi millions def ko ci yàlla rek toog nag di xaar yàlla doyloo yàlla def ko muy seen alal di seen wërsëg di seen am am di seen lépp lu ñu noonu la war a nekk ci àdduna bu ko defee du ñu rëccu lenn waxtu wu ñu deewee bañ koo fàtte nag ci la tàmbalee bañ a fàtte gi itam li koy waral mooy fàttaliku gu bari fàttaliku gu bari gi lu mel ne béréb yi ñu toog te lu ñu fi tax a toog